ñun ñoo ngi wooti ci diggu ndar gi yéen waa ndar soxlaatul kenn di ñëw ndakaaru ndaxte boutique tissu jamono ubbi na ci ndar boutique jamono ñépp ko ràññee chez Jamil Cissé di commerçant nekk marché ndar cantine numéro 62 yéen waa ndar ah dama ni lu ngeen daan wut ci ndakaaru bu leen yaboo ngeen bàyyi ko tissu de qualité bépp tissu boo xam ne nag tissu de cérémonie la loo soxla ci xew muy mariage muy ngente ñëwal gaaw fi nga xam ne moom boutique tissu jamono yi génn ci jamono ak ya génnoon Gen jamono ak yay waaj a ci jamono lépp nga jamono bazin riche jesner bazin veba bi ñëpp di coow palman jesner cuub facebook cuub vip jesner Brode bazin simple brode autriche super 100 fil à fil super 100 fil à fil ah super 100 carreau super 100 unique chan waxiya bàyyiwuñu dara waaw waaw kon nag mbokk yi dig daje fan la fii ci biir marché Ndar cantine numéro 62 lactel Jamil Cissé ñëpp ko ràññee ak a ak a ak a baax jël leen numéro téléphone 77 615 28 96 70 924 72 56 wala 77 379 95 52 77 379 95 52 N'yoko ko J'ai jamono tissu marché Ndar cantine numéro 62 Jamil ñi ngi lay siyaare